assemblée bonne façon assemblée la ban façon assemblée assemblée nationale c'est le seul espace où xam ne nii fa la ñuy mën a mbirum démocratie bu ñu demee ba un espace de dialogue tout un espace de boobu assemblée waratul amul sa raison d'être léegi nag li ma gis ci mbir mi mooy bu li lépp weesu ba def li ñuy war def yépp nous devons lancer un mouvement très fort pour la paix un mouvement très fort pour nous, parce que nous devons revoir le consensus social Nous bâtir de véritables consensus Nous avons une ligne Sénégal consensus mais de telle sorte que d'accord waa dóor jigéen ak wéq jigéen ak xaste xas sa jabar ba mu xaru gis nañ ko fi lan moo ko waral dañ di wax violence symbolique violence physique violence tout surtout ces forces ñu décliné ko jot na nag wax dëgg yàlla Sénégal ñu taxaw te dañ koy wax nag waaraatekat yeeg ñii nga xam ne nii ñooy sëriñ su mag si yàlla teg ci sunu kanam ñoom it war nañu wax parce que dañu war a wax parce que xol yi bu ñu yeesoo yoo torop dina am foo xam ne c'est un point de non-retour Mais dellu rek di wax ne li ñu gis ñëpp rafetul waaye nag am na benn message bu ma bëgg aussi mu jàll parce que bés bu ñu toogee dinañu am temps ñu analyser lii lépp damay wax ne toujours que le temps des femmes n'est pas le temps des politiques coalition yi ne sont pas favorables aux femmes parité il y ko La société n'était pas encore prête nous préparer organiser parce que y yi ñu pour aller vers l'égalité nous dañ ko des institutions Nous nous faire institution une analyse critique di ngeen que la véritable élite se retrouve dans nos institutions ah ah la véritable élite se retrouve dans nos institutions je termine en disant que tout tubaab yi Cette démocratie fi mu dooree xaj na ñun duñ ko def mais démocratie censitaire la commencé ku dul fay impôt doo ci bopp ñëpp xeex pour fay impôt ñu ne ku dul ku du jàngul doo ci bopp ñëpp di xeex pour dugg ci école pour jàng mais mënuñu am ay députés yoo xam qui ne sont pas préparés à cet exercice nañ leen former nañ leen jël te démocratie bu doxee ci biir parti démocratie bu doxee ci biir parti dañuy élite bi nga xam ne compétente parce que leadership aussi doonul loo xam ne day xëy rek sotti leadership dañ koy tabax ci ay at yi at yi at yi at mës naa ko wax man leen Landing Savané mënuñu xëy rek am benn Landing Savané Landing Savané ñaata at la préparé bu nekk nii Marie Angélique ñaata at ngeen di dégg Marie Angélique ba léegi keneen noonu keneen noonu keneen noonu njooro moo tax na ma gëm ne leadership dañ koy tabax du jàng école rek moo ci moom de mais leadership lu ñuy tabax la waaye nag ci boo gis xam-xam moo ko lal minimum éducation moo ko lal minimum ma def gëm naa ni su fekkoon te ni assemblée ña fa waroon a daje ñoo fa daje xeex du fa mës a am xuloo du fa mës a am